léegi moom njaareem la jóge oto bi bi mu jógee njaareem di ñëw man ma jóge Mbàkke di dem njaareem léegi saret bi léegi nekk moom bi mu dikkee saret bi mi ngi génne ci raana bi léegi dikk yëg tëli bi bi mu yëgee tëli bi nag léegi après ci la dóoru ci saret bi moom dikkee bi mu dellu ci saret bi ci la dikk dal ci sama kaw bi mu dalee sama kaw léegi bonde léegi dikk ci kii bii nii bi mu ci dalee la suruf bi non non ay blessé rek lañ. ay blessé rek lañ. waaw man sama oto deux personnes moo ci nekk ak man muy trois. man sama oto kanam gi moo yàqu. kanam gi moo man bi ma jógee Mbacke léegi di dem Ndiarème léegi bi ma dikkee oto bi moom mi ngi jógee côté Ndiarème léegi di ñëw léegi saret bi nekk suñu te bi mu dalee ci bi léegi ci la dal ci man léegi bi mu dalee ci man léegi ci la dem ci pont bi dal ci surux léegi 6 heures 45 la heure bi mais nag ci laa woo sappoor léegi sappoor yi léegi fekk centre yi ñu nga fee ñu woo centre yi ñu ñëw bi ñu ñëwee ne léegi il faut léegi sappoor yi dañuy ñëw ba pare léegi ñu door a laal blessé yi léegi sappoor bi mu dikkee léegi jël na leen quatre personnes yi nga xay ñoom ñoo blessé ñu jël leen léegi teg leen yóbbu leen léegi centre yi léegi def constaté bi léegi jël samay pièces léegi daal may jox benn attestation attestation baa ngi nii ne ma da nga ñëw brigade Mbacké après fekk